bismillahi rahmani rahim wa wasalaamu ala man bu'itha li tatmimi makarimi al axlaaq wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi walmuqtafina bi athaarihim ila yawmi ddin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yeesal suñ jokkuwaay ci Seydil Xaaji Malick si ak njabootu Seydil Xaaji Malick si gi yépp doole ko ci xalifa ba ba ci njaboot gi yépp Serigne Babacar Sy Mansour ak turuq yépp ak waa diine gi yépp ñu ngi leen di nuyu tey ñu ñëwaat ci weeru koor ba tey ci ñaareelu fan bi ñaareelu fan bi nag ñu koy jàngat ci ngëneel li nga xam ni am na ci ñaareelu fan bi ak ay leeral yoo xamante ni nii ay ngëneelu koor la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ci daawuda attaa i boroom xam-xam la mu ni xalabani nawmu fi awwali laylatin min ramadan fa raaytul janna fa ni anni jaalisun ala shati nahrin min durrin wa yaquutin nee na dama nekk ci weeru koor di nelaw moom daa daawdu atta yi nee na ma tëdd rekk nelaw këf ma bi ma nelaw këfee nee na ma gis maa ngi nekk ci tefes goo xamante ni tefesu géej la goo xamante ni mu ngi rafet tefes gi wurusu durra ak wurusu yaaquut la ñu jaxase moom mooy suufu tefes gi nee na ma daal di jaaxle ni waaw fii moom rafet na de fii mooy fan di yéemu ci taar bi nga xamante ni moo am ci barab ba nee na ba ma yéemoo ci taar ba taaru barab ba ba mu yàgg ma gisaat leneen lu ma yéemaat isra aytu jawaaril janna nee na ma gis ay xóorul ayeen jigéenu aljanna yi génn ak taar boo xam ni kenn mënu la misaal taar ba nu mel jàkkaarloog man ànd ak taaru tefes ga ak taaru géej ga ak taaru wurusu durru wa taaru wurusu yàqut ba ak jigéenu aljana yi nee na ñoom ñëpp ñu tiim ma ma xool rafetaay baag rafetaayu environnement baag jigéenu aljana yi yépp dégg nga nee na jigéenu aljana yi nee na ñu ngi leer ba mel ni leeraayu jant mooy na mos a gis leeraay gu mel noonu ndax leeraay googu mu ngi dégagé ci kanamu jigéenu aljana yi ak tefes gan mu mel dégg nga rek ma daal di jaaxle ka annama shamsu min nuuri wajhihinna nee na rek ma daan di wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ndax tiit gu ma tiit ak jaaxle gu ma jaaxle ci jigéenu aljane yi ni ngi rafetee ak environnement bi ma nekk ni mu rafetee ak wurusu durru ba ak wurusu yàqut ba ma wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah jigéenu aljane yi daan may xool fokkul na laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñoom tamit nee na jigéenu aljane yi ni laa ilaha illallah muhammad rasulullah parce que jigéenu aljane yi xam nañ ne daawuda ataa yi ni mu leen xoolee dañ koo yéem ci taar bi ñu ne ko bul yéemu ndax nahnu lil hamidina saimin gis nga nii nga ñu gis nii ak ni ñu jekkee ni ñu rafetee ni ñu taaroo ak li yàlla def ci ñun nekk ñu lu dul lil hamidina saimina ñi nga xamante ni ñu ngi sant seen boroom bay taxawee weeru koor ni mu leen ware nee na ñun pour ñooñu la lil hamidina saimina arrakiina sajidina waaye ñi nga xam ne nekk nañ ci biir weeru koor di julli seeni julli juróom waaye yemuñ ci ci ñuy naafile ci weeru koor nee na ñun jigéenu aljana yi ak li ñuy taaru taaru nekkuñu lu dul ñoo pour ñooñu kon ku bëgg a am ca ñooñu lan ngay def mooy da ngay woor weeru koor di naafi la rek nga am ci xawrul ayni arraakiina na fii chahri ramadan nee na ñi nekk ci weeru koor daal di woor di naafile di sant seen borom ñun ñii nga xamante ne suñu taar bi dafa rafet ba mel ni suñu xar kanam yi leeru jant bi moo fiy gën yàlla daf ñoo dencal pour ñuy woor weeru koor di naafile di sant seen borom ñooñu rek lañ leen dencal kon yàlla yonent bi wax na su sallallahu alayhi wa sallam ni kii woor bi su ñaareel bi ngëneel li muy am mooy aataahu llahu taala misla man salla fi l masjidil xaraami gis nga masjidil xaraam muy màkka fa kaaba ga nekk ku fa julli loo fa julli yàlla nangu xanaa elaaji xamoo ni benn julli bu yàlla nangu buñ ko tegee ci balance mu yóbbu nit ki aljana benn bu julli bu yàlla nangu mais problème bi mooy ndax yàlla nangu na ko wala nangu ko te bu ko yàlla nangoon il foog nga sàmm ko doo ko yàq ba keroog nga fiy jugee waaye Seydi Xaaji Malick nee na xam naa noo xam ni ku ko def yàlla nangu say jaamu yàlla te du ko yàq ñu ni ko lan mu ni lanal fadlu fi dunia wa an fuka raximun ala kulli xaalin fi qabulin nee na Seydi Xaaji Malick ala kulli xaalin ak nu mu mën a demee daal ñun taalibe cheikh yi fii qabulin dañuy nangu suñuy jaamu yàlla kon lanal fadlu am nañu ngëneel kon boo bëggee ñuy nangu say jaamu yàlla doo doonal taalibe cheikh waaye masjidul haram loo fa julli yàlla nangu ko te benn julli boo fa julli benn rakka dafay wottee junniy rakka yoo julli ci beneen beneen jumaa nee na ki woor weeru koor bi dañ koy jox yoolu ki nga xamante ne ni moo julli ci masjidul haram moom mi woor bisu ñaareel bi wa masjidul madina ak jumaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëraayam bu jekk boobu nga xamante ni moo gën a tedd ca suuf ya ndax olil ardi min silkiraami nasibu dañu ne suuf bu sutantee dañu ko jal waaye suuf du gën moroom ma lu dul ñu fa tëdd wala ña fa nekk ñoo koy may ba boobu waaye tamit ki woor weeru bisu ñaareel bi yàlla dina ko jox ci cër luy tolloo ku julli ci masjidul rasul sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit masjidul aqsa ba nga xamante ni moo nekk ci Jérusalem tamit ku fa julli yool ba muy am julli ci euh, jàkka yonent bi yool bi mu am julli ci kaaba ga yool ba ñuy am yonent bi nee na dajale yool yooyu yépp bi ñu ko jëlee ñu taxañ ko paqueté ko jox ko kii woor bisu ñaareel bi kon ki woor bisu ñaareel bi yool woowu lay am banaa fi naafila yàlla nañu ci yàlla yóbbu euh, yàlla nañu yàlla mottalil koor gi ak jàmm bisu ñaareel bi ñuy nekk yi tamit yàlla nañu ko yàlla mottalil ak jàmm ak mboolem jullit di leen sant di leen gërëm fii ci euh, Mame Ndokh TV ak Tidiane Group ànd ak alxaaji Meng Diop ak oustaz Mansour Diène ñu leen di jox rendez-vous suba ci bisu ñetteel bi incha ak yi nga xamante ni mooy ay njariñ yu ci aju wa faqana allahu wa iyaakum li wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu